mais defu ko pour te conforter dans ce que tu dis il a dit mais politique leen. bi livre Madiambal bi dafa revisiter lexico argument euh, euh, nu mu tudd lexico euh, discours politique bi. Mhm. je découvre que su su su su Wade Diouf dañ doon utiliser des des termes très musclés yoo xam ne tey may dogguma la bi président Wade doon wax man dégg naa ko on était jeune mais bi muy wax jël leen seenu vélo. <laughs> bu leen dawati policier moo ko wax de. Ah. bu leen dawati benn policier. bu ngeen bëggee lacrymogène yi du leen sonal da ngeen leen di jege. boo leen leen jegee duñ leen mën a dóor lacrymogène yi ngeen jël chaîne volet et vous vous défendez. alors président Wade laaj ah, seen ah, histoire wax na fi lu non alors je découvre que euh, am na terme yu yoo xam ne ñun aujourd'hui ça nous ça nous choque euh, dañ daan utiliser plus plus plus plus plus grave euh, Macky Sall bi mu waxee loolu la lendemain c'est-à-dire différence bi entre ñoom mooy ne. Ousmane Sonko dafa amoon une jeunesse à son à son écoute xale yu pare pour donner leur vie xale yu pare pour donner leur vie boo leen am na message boo leen di jox le lendemain il y aura parce que xale yi doonuñ doon daw. est-ce que moom amul warul woon am esprit de responsabilité moo xam ne mankat kat jeunesse bi dégglu nañ ma su ma leen ne wàcc leen ngeen bloqué Ndakaaru mm. dinañu jéem kémtalaay kàttan wàcc pour pour bloqué ko mm. te xale yi ñoo ci nar a dee te commerçant yi ñoo ci dul liggéey administration bi moo ciy paralysé sénégalais yi la ci seen entreprise yi mm. euh, di di di tëj te mankat réew mi su ma koy jël bugguma ko jël en lambo est-ce que moom warul woon am mesure ci mesure ci ay mot d'ordre am nangul ko lenn waaw moo tax encore ma ñëwaat ci nii boo jàkkaarloog ay nit jombalewuñu seen bopp dara ci détruire la soit nga ñàkk fayda toog ni lu xew baax na nañ ma rey ñu suuli la nga jeex ou bien nga ni damay résister parce que yàlla daf la sant nga résister nga résister mais da ngay résister contre qui xaaral ma expliquer la. contre Macky Sall ou contre l'État Ousmane Sonko bu sañoon du wax jeunes yi dem leen ngeen génn sax manifester ci biti. li mu leen njëkk a woo dafa ne bu nawet jotee nañ leen def bi defi vacance agricole communautaires. Ah. il a commencé comme ça. ça mais mun a nangu leen loolu des grands jours. mais mais ce sont que des grands jours la gars doo fi nekkee grands jours dañ lay détruire. vacances agricoles communautaires c'était le Sonko des man dama daan dajeek ñoom bu may dem su ay samay tool ma dajeek ñoom ñuy dem béyi kanja fii booru booru tubaab jalaw ñuy béy kanja j'étais fier man ma ma jaajëfal leen ci loolu lañ bëggoon dox. da nga doon gis ñu vacances ñu ne leen dem leen def defi ay don de sang def ay visite médicale gratuite dem leen c'était ça l'esprit Pastef man man je suis leur allié ku ko jege laa xam naa ko de l'intérieur et de l'extérieur je connais le Ousmane Sonko et son caractère foncièrement pacifique mais may mun a boo commencé di doxal loolu di def say vacances di béy say kanja nit ñi commencé la topp nga am popularité élection ñëw nga jàll beneen élection nga kiyaat ñii doo ko fi waxee doo ko fi defee doo exister on te détruit mais da ngay xeex mais mais da ngay xeex xeex boobu nag malheureusement moo indi lépp du lu ko gënal ba ci les derniers épisodes yi li mujj am man je suis sûr que maa ngi mujj wax ak Sonko une semaine avant ñu koy arrêté une semaine avant ñu koy arrêté yàlla xam na ni jë rek may témoin yàlla rek mooy sama témoin parce que man moom ñoo ñoo ñoo ko doon wax li ñu doon wax lépp c'est sur la paix sur jàmm sur le programme sur réew mi en 2024 comment on fait naka lañ koy transformer lan la ñuy def lan mooy priorité bi yàlla xam na ni jusqu'à l'idée que nañu xool comment les gens s'organisent pour que bu fi amati dara lu dul même ay idée de dialogue tant que nekkul ay compromission nekkul ay affaire sur le dos du peuple ñu waxtaane luy permettre un processus électoral normal mu bokk ci ki ci war a bokk bokk ci bu gañee ñu jox ko pouvoir bi talul sax nekk fi naan mu ngi topp Macky Sall man je suis persuadé que bu ñu ko ñeme woon ñoom déglu ko jéem koo comprendre ba bàyyi ko yàlla dogal ci moom li muy dogal bu demoon en 2024 gagné Ousmane Sonko mii du mooy jàpp naa maa ngi fayante ak Macky Sall dana ko ëpp dana ko jàmbale boppam xam nga mën nañu dana ko jàmbale boppam mais